le bindaloo ku ne gis na président Macky Sall li ñu defal wàññi ñu gaalu moteur yi kon ñu loolu suñu lekkee de pêche mu koy ubbi kon jàpp naa ne Sénégal émergent du slogan C'est une réalité et donc cette réalité là vraiment nous remercions le président de la République qui a déployé tous ses moyens mettre à notre disposition nous en tant que fédération des peuples de l'eau mais lebal nañu lebal nañu te xam nañu lebal nañu te danañ ko fay incha allah. alors lu mel nii est que mënul euh, gën a ñaax suñu tegalaat indiwaat dekkalaat li nga xam ne moo di euh, régate championnat championnat comme compétition sportive. waaw loolu mën nañoo wax léegi ne fédération des peuples de l'eau loolu bokk na suñu ay objectif parce que boo seetee dañ doon wax fédération des régates fédération des régates ñu dox ci wax waaye ñu xam ne wax jëf da gën a wóor moo tax tey ñu jëf bi ñu jëkkee jëf defoon nañ lu xaw a mel nii waaye lii musul am ci histoire Sénégal baaraay yi tey wàcc si biir ndox 40 ans wàcce ñu si suuf kon tey bu ñu wàccee mu nekk fête mu yem ak premier mai muy fête du travail man jàpp naa ne tey jii bu neex ma ànd ka nag ak samay bokk parce que bu doon man tey mais samay bokk ñoo jàpp kon maa leen di gërëm maa leen di sant Sénégal peuple de l'eau mu ngi leen di jox fête mu ngi leen di jox rendez-vous le 27 juillet à Poudjoul la présence effective du président Macky Sall allahu rabbi le 27 juillet on va à Poudjoul te bu ñu jógee fii danañu dem Niamey gis ngeen léegi waa Bois de Loup gis ngeen 90 personnes ñu ngi jógee Martinique ñëw ci fête maire bu Bretagne yoon nañu ambassadeur yi ñëw ñëpp ñëw gendarmerie gërëmuñu marine gërëmuñu sapeur pompier gërëmuñu pare balise direction générale port ñoom ñoom ñu leen di gërëm parce que nag jàpp nañu ci bëgg mais di gërëm le grand Serigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne wax dëgg yàlla jàppale nañu jàpp na ci bés kon jàpp naa ne daal mbir mi ñoo ko moom te suñu mbir la te kenn du bàyyi mbiram incha allahu rabbi danañu continuer ci fédération des peuples de l'eau fédération des peuples de l'eau dafay ay investissement jënd ay gaalu boppam loolu mooy wane ni ñu ngi dem ci championnat incha allah danañu dundal régal danañu doxal régal danañu revivre les peuples de l'eau danañu indi cosaan danañu indi lépp ñam danañu mais amee ci suñu ay maam des peuples de l'eau ñu gërëm nag waa Bargny parce que nag deuxième édition Bargny c'est pas évident mais bu ñu doon départ yi jàpp naa ne wax dëgg yàlla lu ñu war waaye ñu ngi gërëm waa Balla